juróom-ñaar waxtu jot na ci télévision Futur Média waxtu li ci penc mi ñu dellu di rafet lu ànd bi ak kóolute gi ñu ànd ci tey ak Mame Fatou Ndoye Mame Fatou ñu lay nuyu. maa ngi lay fay ngone ñëpp ñu ñuy seetaan. Euh, moo ñuy jàngal kon lu jëm ci wàllu actualité bi li ci gën a fës nag ci wàllu xibaar yi day mitti waaye at mi du neen euh, jëriñ ji ñu denk wàllu ko njàng mi moom moo ko xam le Ibrahima Sall ni année blanche euh, du am ndax dana ko tekk ci diisoo ak ñu seq yëf yi ndax bu ñu ko doxalee lu toll ci ñetti téeméeri milliards danañ ko ñàkkta fas ñu yéene seetaan lu ni mel waxtu woowu bachelier yi nga xamante ni kenn orienté wu leen ñoom ña ngay dànkaafu kilifa yi gën gaa yàgg altine lañu leen may lu ko mooy la ñu ca tekk di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi Macky Sall moom di ñaan ab diir askan wi ngir nag mu mën a dëppoo ak i digeem ab booba ñooñu mu koy ñaan lan lañ ci xalaat dinañ ko leeral ci kanam tuuti moom mag sàll amal na tey jii génn bu njëkk euh, jëmale ci l'armée nationale bi euh, diggée na fa ni dana réengagé euh, soldats yi ami gaañu gaañu te nag mën a liggéey waaye it jëm ci payoor yi danañu ko yokk bis bu ñu jagleel wàllu taalibe yi danañu ko waxtaan ni tey la ak ki nga xamante ni danañ ko ci dalal ca kanam tuuti maam la ci wàllu woowu tàggat yaram Mame Fatou Ndoye dana ko faram-fàccee ni suut ñu yaatal loolu lépp Mame Fatou kon wàllu njàng mi lañ koy tàmbalee ni ko waxee ci ndorteelu xibaar yi année blanche bi nit ñi di tiit jëriñ ji nee na du fi amee mm-hmm. ndax euh, koppar yu sakkan yi nga xamante ni buñ ca yeggee kon mën nañ koo ñàkk waaw muy euh, ni nga ko waxee ñetti téeméeri euh, milliards Ibrahima Sall nag moo ko xamle nee na moom nag li mu yaakaar rek ngir ñu bañ a neenal at bi mooy diisoo waxtaan nag ñëpp ñi nga xam ne ñoo seq système scolaire bi muy enseignant yi di élèves yi loolu nag mi ngi ko lee fële Euh, ci benn euh, jataay boo xam ne francophonie euh, organiser na ko tey muy di bégal ak di récompenser ñenn ñi nga xamante ni ñooy liggéey muy ay ndaw euh, ci wàllu euh, littérature ak euh, wàllu lecture Ibrahima Sall nag yaakaar ni daal bu waxtaanee ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo seq wàllu njàng mi xëy na yaakaar na ni année blanche du am ci concours boobu la ñuy desandi comme ni ma leen ko waxee francophonie amal benn concours boo xam ne xale yi dañuy wane seen xarañ ci wàllu bind ak ci wàllu littérature looloo waral nag ñaar fukki xale ñoom ñuy jox leen ay euh, neexal gannaaw ba ñu wonee seen xarañ euh, ñu déglu kenn ci ñoom euh, di ci xale yi di Fatou bintu Diankara ci micro Astumben Thioub ak am Diallo. concours bi nag dañ doon def ko léegi nag ko jéem après ma mooy jour bi nga xamante ne nii sama papa doon na ñëw waaw ndax juddu ba am sept ans gisuma sama papa benn jour mu woote ne day ñëw. sant suñu parents yi tamit kon tey duñu agsi fii dama kontaan ba mu jéggi dayoo dafa kontaan ba jéggi dayo waxtu woo am nañu mer ba futtu bachelier yi nga xamante ni orienté guñu leen ñoom nag àpp la ñu jox gouvernement bi altine waa nee nañ fii altine daal buñ leen waxul lu leer ñoom danañ dem fële euh, ca jàngukaay bu mag ba di université ngir bloqué lépp loo xam ne mooy euh, yëngu-yëngu foofu ci wàllu administration ñoom nag euh, bachelier yooyu nga xam ne kenn orienté wu leen fu nekk lañ jógee ci Sénégal waaye nee nañ gëmatuñu lépp loo xam ne dige boo xam ne jox nañ leen ko kii àddu si mooy Kémo Dramé euh, moom mooy euh, coordonné collectif bi ci micro Fatimata Ba ak Germaine Dior. dañuy ñëw fii pour lancer un ultimatum maanaam dañ leen di avertir ne ñun wax njëkk nañ ñoo nax nañu ñu mercredi ñu muñ toog xaar parce que foog naa ko mun ay 6 mois orienté wuñu war nga mun a mun ñaari fan ñu muñal leen léegi ñëwaat nañ ñu neewaat ñu encore muñal leen ñu ba samedi au plus tard au plus tard léegi nag ñu ngi xaar lundi dinañ dem bloqué lépp luy pédagogie si université dinañ ko bloqué social dinañ ko bloqué même dinañ interdire administration bi sax euh, ñu ñoom ñu agsi fi autorité universitaire yi dañ leen di interdire ñu accéder si université bi parce que vraiment ñun ñun instant bi nii dañoo dañoo jaaxle kooku nag euh, di Abdoulaye Faye euh, addu ci wolof Kémo Dramé dinañ ko dégg ci kanam euh, ci incontournable ñii tamit ay ndaw lañ yuy jàng fële ca université waaye ñoom daal li ñu yaakaar mooy Macky Sall bien ko toog na bu mu laal lépp loo xam ne mooy découpage administratif yi nga xam ne jotoon nañ ko fi def muy nguur gi ko fi jiitu loolu nag moo waral ñoom daal bugguñu ñu nangu seen communauté rural te boo moyul bu ñu indee coppite ci loolu ñoom euh, dinañ euh, amal ab xiifal loolu la xamle euh, ki ko xamle mooy Mouhamed Faye moom ci collectifu étudiant Bambilor yi la bokk ñu déglu ko. jël commune rurale Bambilor delloo ko Sangalkam muy loo xam ne ñun rafetlu wuñ ko parce que tey jii ku gis Bambilor ni mu toll ci yaatuwaayam ak ci nit yi mu am nga xam ne dépassé na 16000 habitants Bambilor tey sax dépassé na village ñu def ko commune rurale ñu war ñu jël delloowaat ñu en village loolu rafetlu wuñ ko jaral nañu lu nekk pour commune rurale des Bambilor prévoir nañ def grève de la faim c'est illimité bu jëree ñàkk suñu bakkan ci loolu nañ ko def tey ji dañoo bëgg mu def ab amal ab l'enquête ci li nga xam ne mooy suuf yi luubal suuf dafa bëri ci Sangalkam loolu ñëpp xam nañ ko fi mu toll ay jàmbur yoo xam ne seen suuf mu ngi ci ay loxo yoo xam ne mënuñu ko jot parce que y a une injustice boo xam ne def nañ leen ko leneen ci wàllu xibaar conseil d'administration waaradoo amal nañu ko gannaaw ñaari at ci yëngu-yëngu. waaw ñoom amal nañ ko ki jiite nag conseil d'administration boobu di Amadou Ly di yaakaar ni mën nañu gën a yaatal waxtaan yi ci seen biir waaye nag li leen gënal am solo mooy euh, ñëpp ñi nga xamante ni euh, indi nañ ay nooteel ci élection yi ñu mujj génn ñu dem yóbbu leen ci euh, wàllu justice ba pare ñoom ñu àddu ci kanamu justice Amadou nag moo jiite conseil administration RADDHO ñu déglu ko ci micro Cheikh Sadibou Diarra ak Adama Gueye. bilan bi nag eh, kontaan nañu lool ndax eh, eh, gis ngeen yéen ñëpp ne wax dëgg yàlla. ñun RADDHO joué nañu daal li nga xam ne moo waroon suñu bay nañu suñu waa dañu bëgg ñu gën a xam waa Sénégal ak waa ñenn bitim réew gën a xam lan mooy RADDHO ak lan moo composé RADDHO aussi bien ñi ñu gaa ñi ñu rey ak ñu suñu nit ñi ñu dóor duñu ko bàyyi duñ ko bàyyi tey duñ ko bàyyi suba il faut que ñu dem ba ci cëppaandaw ga ñun dinañ porter plainte suñu wàll yeneen yi mënuñu porter plainte ci place nit ñi mais ku ci porter plainte ñun dinañ la taxawu dimbale la wutal la avocat daal di daal euh, liggéey ak yow comme ça suñu nga dem ba yàlla may la yàlla may ñu justice am lu ñuy bañ mooy li tubaab bi di wax impunité maanaam nga def lu la neex nga ñëw dara du la ci fekk. kooku nag di Amadou Luy jiite conseil d' administration bu rado ñu dem fële ca permanence su PDS gannaaw ba nga xamante ni ñenn ci ñi nga xam ne ñooy milité ci PDS ñu ngi dajeek woy taskatu xabaar yi euh, ci li nga xam ne mooy un peu actualité bi ak fronde boo xam ne euh, jot nañ ko dégg ci biir partie bi ñu ngi euh, jokkoo ak Ibou Kane Ibou Kane lan moo xew foofu noonu ci permanence PDS ak lan nga jëlee ci conférence de presse bi. mel ni bu kan euh, déggaguñu kon nag euh, xanaa. ñu koy euh, lambat man Fatou. ni nga mm. ko waxee ndax coow li am tàng yi ci biir parti démocratique sénégalais. ak ñoo xamante ni xëy na ña ngay bu ñu beru seen daara it ña nga ca mm-hmm. bool bi am beneen gis-gis. bu mm-hmm. mel ni bu kan kon teew na. Ibou Kane ñu ngi lay nuyu. comme ni nga ko waxee ñu ngi fii ci quartier général parti démocratique sénégalais ci PDS bi. Mm-hmm. tey jii nag benn conférence de presse la fi woote ñi ko woote ka ca gën a sos di Omar Sarr moom moo nekk coordonnateur euh, coordonnateur général fi mu toll bu parti démocratique sénégalais ndaje bi nag euh, lu ko undu du lenn lu dul addu jëmale ci front bi nga xam ne nemmeeku nañ ko jamono yi ci parti démocratique sénégalais ña ko amal di ñoom Pape Diop Ousmane Masseck Ndiaye ak Mamadou Seck euh, tey jii nag ñoom addu nañ jëmale si wax ne ñoom seen gis-gis seen bëbët fi mu toll mooy jéem a créé benn liste parallèle rek pour dem ca élection législative yi waaye nee nañ ñoom loolu duñ ko nangu tey te duñ ko nangu ëllëg nee na ñooñee nag dañuy wër di wax ne yenn décision yu maître Abdoulaye Wade jël la jëm ca congrès ba maanaam def lépp amalu ci benn waxtaan moo xam comité directeur bi la wala bureau politique bi ne waxtaanu cee kenn ñoom loolu lañ doon wax ne moo leen metti at liste yi nga xam ne dañ ko confectionné ba pare waaye Omar saar ak ñoom maître Madické Niang ak Ousmane Ngom tey ji ñoom dañoo xam ne rek ne loolu ñuy wax dara nekku ci dëgg mais nag ñooñee nag euh, tey jii li tax ñu taxawee tànk bi ñu taxawee mooy euh, maître Abdoulaye Wade daf leen woo wax leen ne leen tey jii ku ci bëgg a jàppale parti démocratique sénégalais na nga investir ci départementale yi ci élection législative yi ñu dëgmal mais ñooñee nag dañoo bañ dem ci liste départementale yi ndaxte ñoom ne nañ xam naa dañoo am lu ñu ci fiig wala yu demee noonu mmh. looloo tax ñuy wax euh, naka sudul noonu di wax ne Euh, maître Abdoulaye Wade day jël ay décision yoo xam ne moom rek moom moo koy neex mu mel ne daal moom moo am dogal ci biir parti bi. Mhm. Ousmane Ngom tamit yëkkati na ci ay kàddu nee na daal dafa am ñoo xam ne tey jii ñu ko mën a euh, misaalee rek mooy. su ñu nekkee ci benn navire maanaam benn bateau bu bateau bi commencé am ndox rek dañuy mel ne ay kaña dañuy tëb daal euh, jéem a gën a war daal. Hmm. kon daal maam Fatou ak euh, noonu daal lañ ko ñoom Omar Sarr jàppee ne nañ. Hmm. Euh, taxawaayu ñoom Pape Diop tey jii daal dafa wane ne dañoo war maître Abdoulaye Wade ndaxte nee nañ bu doon ñu ci pouvoir bi ba léegi. Hmm. kenn du sañ a jël décision bu ñu mel. waaw euh, ñu lay jaajëfal Ibou Kane di fàttali ne yaa ngi woon fële ca quartier général lu PDS ngir donc dëggal ngoone ne effectivement dafa mel ni PDS mi ngi commencé am scission mën nañ ne sax scission am na ba pare looloo fi gënoon fës nag ci wàllu. actualité. ñu lay gërëm di la sant xibaaru tàggat yaram yooyu di nga ca dikk ci kanam tuuti Mame Fatou Ndoye euh, leneen ci wàllu xibaar njiitu réew mi président Macky Sall moom nag euh, dige na dige ni kon dana engagé waat soldats yi nga xamante ni kon dañoo ami gaañu gaañu waaye ba léegi euh, mën nañu liggéey nee na it lu jëm ci seen i payoor dana ko yokk moom Macky Sall nag demoon na kon fële ca l'hôpital militaire. bu wakaam euh, euh, foofa kon ci wàllu visitam seet ñi nga xamante ni kon dañu am ay gaañu gaañu ay blessé ak it ay euh, mutilé de guerre du ñàkk ci kàllaama nasaraan ci kanam tuuti ci xibaar yi ñu dikk ci ci ni mu gën a yaatoo président Macky Sall mooma nag leneen ma ngi koy laaj maanaam daal ñu may ko ab diir diir nag ngir li mu fi diggee woon ak askan wi mu doxal ko ci wàll woowu askan woowa kon yëkkati nañ ci seen xalaat naka la ko gisee Ibou Diouf moo tataan seen i kàddu ànd ci caméra bi ak Ibou Cissé. xam nga wolof Njaay dafa nii boo gisee sàmm bala nga koy pes nga xam lu muy wëlis. nguur gi itam nañ ko may diir dafaa fekk itam nguur gi wan wane nu muy fexe ba ay pexe yu gaaw a gaaw am. ngir soxal sottil yenn mbiri ñi war nañ mën a xam ne mënul ñëw rek songandoo lépp rek daanandoo ko il faut mu xaar xaarandi ko mu xool yi gën a am solo lu mel ni ci wàll dund gi ci ñàngum école bi ak yeneen ak yeneen yu. nañu dafa njort rek nañu dafa njort daal ndax euh, comme li luy weesu weesu na dégg nga nañu xool lii suñu kanam waaw ñu xam daal dégg nga lu ci mënti am daal. jëngal ñu ñaan daal di gën daal. nam defoon ba dugg si gox-goxaat si biir réew mi xam si yi li leen ñor dem seeti béykat yi jusqu'au fin fond de la brousse loolu bu mu ko fàtte la ko fal bu mu ko fàtte parce que nee nañ boo nee ci kaw del bàyyi xel ñu ne si suuf comme ñi suuf ñoo la fal ba nga yëg si kaw nag kon del bàyyi xel ñu ne si suuf waaw nee nañ saako bi bu ko bënnee ci kaw mais bënne ko suuf muy jur su ko defee ñi si suuf mën si jëriñu. tamit bu mu fàtte loolu mayoon nañ ko président bi fi génn. maanaam en 2000 ñu ne bàyyi ko mu liggéey bàyyi mu liggéey ba fi ñu tollu nii gën gis nañu ko léegi moom war naa mën a xam loolu ba période de grâce boobu muy ñaan ci boppam mu jox ñu date limite ne bu ma dee ba temps ma commencé li temps mu def lii mu def lii mu def lii. joxe délai bi moom heure la mun na joxe délai te fekk affaire bi sottiwul moo tax nañ ko bàyyi daal rek mu toog bu lépp sottee rek gëm naa ni moom dina liggéey dina def lépp daal ba mu baax. man defe naa délai sax euh, laaju ko xam nga app app moom boo ku fi wax itam du du sotti li am maanaa mooy nit ñi nañu rafet njort waaye gouvernement bi itam na def lu nga xam ni bu ko defee nit ñi am ci yaakaar. dund gi mu essayé xool naka la koy wàññi mais pas aujourd'hui parce que am na ci jeunes yoo xam ne comme ñun ah xam nañ ne mënul ñëw rek régler loolu quoi régler problème yooyu mais d'ici quelque temps quoi dans six mois ou dans sept mois ñu ngi koy xaar ci loolu quoi pour mu wàññi dund bi quoi. leneen ci wàllu euh, xibaar yi fële kon ca Notre-Dame ak Immaculée Conception euh, njàng ma daal nañ ko fay euh, dakkalani bis yi Notre-Dame yi nga xamante ni nag élèves yi féetee ci public bi te doon naqarlu grève bi yàq nañu ko bokk nañu kon ci waral loolu kon leneen nit ci wàllu xibaar fu demee ni Jeanne d'Arc mënees nañu ko caa jàpp ci reportage kon Fatimata Ba Madani Marega institution Notre-Dame Immaculée Conception Jeanne d'Arc di ñetti école privée yoo xamante ni boobu ba léegi mucc nañ ci jafe-jafe yi am ci njàng mi waaye mel na ni loolu dakk na ndaxte ay lycéens yu nekk ci grève dal nañu ci kaw Notre-Dame ba yàq fa ñeenti bus ba tax na dakkal nañu seeni cours li waral loolu moo di amuñu ay oto yu doy ngir jëli ndongo yi comme niñ ko baaxoo di defee beneen école privée bu jël ay matukaayam di Sainte Jeanne d'Arc foofee ay alkaati lañu tekk ci buntu l'école ba ngir élèves yi mën a jàng si jàmm Jeanne sax ñoom mën nañu wax ne tëj nañu ndax ñoom France la ñu bokkal programme ca Immaculée Conception moom donte jànguñu tey dinañu reprendre cours yi altine jamono ji nag diggante école publique yi ak école privée yi tar na lool élèves publics yi ñoom gisuñu leen lu dul année blanche nguur gi bañ na du si dal ca Notre-Dame cours yi dinañu reprendre suba ñoom nag fas nañu yéene porter plainte contre X njiit la fi woon ñu daaneel ko Amadou Toumani euh, Touré fii la terse ci euh, Sénégal moom nag boori euh, minuit la yegg si kon ak njabootam ba mu yegg see nag du benn déclaration boo xamante ni def na ko jëwriñ ji ñu denk wàllu bitim réew Maître Alioune Badara Cissé ak ki yor kàddu ko njiitu réew mii ñoom ñoo ko dalal Marie Christine Mendy am Mane Touré ak njabootam nee nañ cëpp ci biir Sénégal biig ci ay xaaju guddi la egsi ci aéroport bu Dakar ci biir avion présidentiel sénégalais bi di Pointe Sarène moom doomam ay sëtam ak ay garde corps am ñoo fi egseendoo deful benn déclaration de presse kii di ministre des affaires étrangères maître Alioune Badara Cissé ak porte-parole président de la République Abdou Abel Thiam ñoo ko tertu ngir ñëwam fii ci biir Sénégal mën a am nag ab accord la signé ak kii di ex chef junte bii di capitaine Sanogo ATT laata muy ñëw Sénégal dafa dawoon làqu ji fële ca ambassade bu Sénégal bu nekk ca Bamako bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu njiitu réew mi di mag Macky sàll Amadou Toumani ture kii di capitaine Sanogo moo daaleloon nguuram ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars tey jii nag bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu ñu jot moom ak njabootam rawale nañ leen fële ci résidence Pasteur. tàggat yaram maam Fatou regroupement kon ci wàllu junior yi ngir euh, ñu gën leen a tàggat. dëgg la ngir euh, waajal tamit éliminatoire CAN 2013 yi euh, muy ñetti stage yoo xam ne kii di bu Kounta Cissé nga xam ne mooy entraîneur junior yi dina ko amal bu njëkk bi nag dimanche bi la ko fas yéene. amal euh, bu ci topp mu koy waajal ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril euh, gannaaw ñetteel bi nga xam ne moom moo war a jeex euh, ci benn fan ci weeru mai bu Kunta Cissé nag moom tànn na ñeent fukki joueur ak ñett yoo xamante ni daal war na leen tàggat ci ñetti fànn yooyu ñu fàttali ni junior yi war nañu commencé ñoom tamit seen éliminatoire CAN 2013 ci weeru juillet ñu dellu si fii ci Sénégal wax tamit ci li nga xam ne mooy 16e de finale coupe de la ligue nga xam ne week-end lañ ko fas yéene amal euh, suba jàmbaar euh, dina dalal renaissance euh, bu Yoff nga xam ne moom équipe ligue de la fële ci stade de foot de Wade bu sali kii di CSS di équipe ligue war a dajeeg port équipe euh, Ligue 2 fële ci stade Demba ci ñeenti waxtu euh, jaraaf nga xam ne mi ngi ci Ligue 1 bi war a dalal HLM ci Ligue 2 boo xamante ni nag USO US euh, Wakam ak GFC tamit dinañu laale ci juróom-benni waxtu loolu nag muy chocu Ligue 1 bi dimanche fële ca stade Aline Sitoé jata Casa Sport war a dalal Sunéor bu Ligue 2 ci wàllu football. ñu jeexaleeg li nga xamante ni euh, mooy actualité bi gën a fës ci euh, week-end sport bi muy euh, làmb ji nga xam ne war nañ ko amal dimanche fële ca stade Demba Diop mu war a dajale Yékini ak Balla Gaye 2 ku nekk nag am ci sa xalaat surtout ñi nga xamante ni ñoom ay amateuru làmb lañ ñoom nag le Sayer Insa Diop ak Marja tàllal seen micro. Yékini Balla Gaye li ma ci xalaat combat de choc la Yékini li mu def ci làmb yi Balla defu ko mais Balla Gaye c'est un gosse boo xamante ni aussi depuis que mu démarré ba léegi sur sa voie delul ginnaaw li ñu ne rek ku la njëkk ci dof rek ëpp lay sagar Yaxya dafa def jéego gu rëy ci làmb ci wàllu xeex Yékini moo dàq xeex ci wàllu mystique aussi je crois que il est très fort mystique bi tam lañ ko nar a wàññi làmb yi léegi jaral na leen sax ñi dee fa am xaalis bu dul jeex te loolu jaru ko. ci chance bi ñun ñëpp ñoo ñoo yem chance daal ñoo yem chance. bi dina dindi stress yi. parce que dafa di combat bi ñuy xaar. Euh, Yékini man laa gis parce que non seulement moom mooy le roi des arènes et tamit euh, yàgg na ko wane ay yooni yoon dem na sax bon ba Niger ba tas fa fédération kon nag euh, loolu noonu dafay wane ne dëgg-dëgg moom mooy favori. yenn problème la éviter ko rek mooy comme ni ñu defoon keroog à la RTS. amul supporter Yékini man supporter Yékini laa amul supporter Balla Gaye Euh, ku jàdd yoon rek dañ la war a delloo ci yoon. ma si njëkk a déranger mooy heure bi ñuy def làmb ji quoi. heure bi ñu koy def mooy heure bi nga xam ne nit ñi dañuy julli timis te man heure boobu chaque fois si biir jàkk ji la may fekk damay gis ne deux premier sappe bi sax deuxième sappe bi sax du fees. ku si daanu ku si daanu c'est pas la fin du monde. Euh, donc loolu nit ñi wax ci wàllu. si wàllu Fatou Ndoye ñu koy gërëm di ko sant wàllu tàggat yaram lañ doon ànd ak moom yegg si kon ci focus bi jagleel ko bis bi ñuy jagleel kon wàllu taalibe yi euh, tey jii la ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy euh, jàngalekat yi di sàkku ñu gën a bàyyi xel xale yi askan wi gën a farataal njàngum alxuraan mi euh, taalibe nga xamante ni nag ñoom lañu ñu jagleel bés bi mel na ni yëguñu lu géej gi riir Maymuna Njaay Jafara Ba. déggu ma ko de eh, xaw ma ci dara de. taalibe yi xamuñu ni tey la bis bi ñu leen jagleel ci wet ga ñiy jàngale alxuraan bootu cib kuréel xëy daje ngir seet nan lañu ñu mën a def ngir coppi nekkinu ndongo daara yi. ñu ngi fàttali ki nga xam ne mooy yor éducation ministère bi yor éducation ak yar ci réew mi yar ak jàng ci réew mi ñu ngi koy fàttali ne am na lu ñu inspection de daara maanaam bànqaas bu ñu dénk daara alxuraan ci biir ministère bi ñu ngi koy ñu ngi koy fàttali bini euh, bànqaas boobu. na ko dëgëral bu baax a baax jamee mi ngi sàkku tamit ñu delloo si li ñu doon tuddee ministère bi ñu jënkoon wàllu diine bokk jullit yi kenn ku nekk boo def jullita yàlla dana laaj sa doom nga jàngal ko alxuraan amul benn xam-xam boo xam ne yàlla day fitnal ci ñàkk koo jàng ba mu des xam-xamu diine jàngalekat yi taxaw nañu tembe ngir jàppale ndongo daara yi ñoom sax dañuy ñaawlu ñaawteef yi nga xam ni yenn ci sëriñ daara yi ñu ngi koy def ci tuut tànk yi. alxuraan li mu ñu jàngal mooy njub te jàngalekat dafa war a jub euh, koo xam ne nag da nga war a defar maanaa waroo yàq. bokk na ci li gën a ñaaw koo xam ne day tuddeewoo turu ab sëriñ daara di viole ay kale yu jigéen loolu ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax te ñu ngi koy dénoncer di ko moytuloo képp koo xam ne mu ko doon def na ko bàyyi ndax jaaduwul. pexe boobu mooy fii yoon moo fi nekk. Euh, lépp képp koo xam ne jaar na ci yoon woowu yoon li mu teg ci moom liñ ko war a teg nañ ko ko teg parce que jaaduwul dañ ko war a bàyyi. ci loolu sàkku nañu ci mbër yi rawatina woykat yi bàyyi alxuraan gi ñuy tudd ci seeni way ak seen bàkk. ñu ngi ñaawlu ci làmb bi tamit alxuraan bi nga xam ne mooy téere bi gën a tedd ci kaw suuf. te borom bi subhaanahu daal di ñu ko yónnee mu jaar ci yónnante mu nekk lu ñu war a dund nga xam ne téere boobu sax ñu ko noppee woon jàng ci kaw suuf rek yàlla man na ma bu asamaan bi alquran boobu ñuy foye di ko di ko bind ci place yoo xam ne sellul eh, di ko foye loolu ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax eh, ñu ngi sàkk ci ñoom ñu moytu loolu bay alquran bi ñuy foyee ci lamb jàngalekatu alxuraan yi di sàkku ci njiitug réew mi amal ab neexal at bu ne jagleel ko tut tànk yi gën a ràññeeku ci njàng mi loolu dina tax ñu gën a am jom ci li ñuy def reportage baa ngoog ñu àndoon ceeg Maymuna Ndiaye di ci dalal imam Adama Seck président association jàngalekat yi alxuraan yi fële ca la seni imam ñu lay nuyu waaw ñu ngi leen di fay soxna Ngoné imam dañu koy tàmbalee rek ak euh, image bu mujj bi taalibe yooyu ñu seen ñu yor seen pot bisub tey kon lañ leen euh, jagleel bu mel ni Sénégal bu ñu nee taalibe euh, nii lañ ko gisee ki nga xamante ni moom mooy yelwaan boo ne taalibe xel yi loolu lay njëkk a dem waaw jërëjëf ci sa laaj bi loolu moom dafa mel ni lu fi xaw a yàgg la mm. ba tax na ñu lu jëm ci wàllu daara ñun ci côté boobu sax d'ailleurs moo tax ñu organiser wu pour xool ba xam li nga xam ne moom lañ ciy askanale daara te daala moomu ko nan la ñuy def ba sepp ci loxo daara parce que bu ñu waxee yalwaan en général 20 euh, avril bu ñëwee liñ ciy gën a euh, fésal moom mooy xale yu ŋàbb seen i pot di nga def tànku neen sol sa ay si yëre yu xoteeku loolu lañ jàpp ne ñooñu ñooy ay ndongo daara alors que ci biir catégorie boobu nga xam ne ay yalwaankat lañu am na ci ñoo xam ne ñii vraiment comme ay ay ndongo parce que ay ay fàq maana ci yoo xam ne yu ñu xam la parce que ñun def nañ ci ay liggéey yoo xam ne gëstu nañ ko ba xam nañ ko eh, xam nañ ci itam ñoo xam ne ay néew ju doole moo tax ñu ñuy wàcc eh, bi di di sàkku ndimbal donc na benn catégorie bu ndaw boo xam ne bi ñoom ñooy yelwaanloo seen i dong mais ñooñu ña koy def heure yi nga xam ne yi moom lañ leen sant sëriñ daara yi i seen i seen i dongo lu ñu mën a jëfandikoo parce que euh, maanaam yelwaan ji dafa nekk benn moyen pour yar leen waaye en même temps ñi nga xam ne ñi tey yi ñu fu ñu sukkandiku dañuy sukkandiku léeg-léeg pour xale yi mën a génn am lu ñu wuti bu ñëwee mën a continuer waat seenum jàng yaa ngi wax différence bi ci xale yi ci mbedd mi kon kan moom moom euh, turu ndongo daara ñi nga xamante ne tey jii euh, yéen yéen leen di tàgg waaw xam nga journée bi ñun dañoo ñëw yàlla dafa def ñun ñu ñëw depuis presque près de 30 ans lu ko lu ko lu ko lu ko lu ko ëpp sax fekk nañu chaque le vingt avril bu ñëwee rek ñu tudde ko journée nationale du talibé te te talibé le mot talibé baatu arabe la li muy tekki mooy koo xam ne ki dafay sàkku mais fi ñu ko gën a fi ñu ko gën a ràññee suñ ko waxee toujours en général fii ci Sénégal dañuy wax ne taalibe di ki ci xam mooy koo xam ne day jàng alxuraan képp koo xam ne kii nag yow ñu ngi lay tuddee taalibe euh, te te xamewuñu la jàng alxuraan dañ laa jox tur waaye moom loo ko loolu moo tax ñun ñu ne kon comme demee na nii te à chaque fois dañ naan seetlu euh, bu mësaane egsi rek ñu baree baree bari daal di tàbbi ci biir euh, mbir mi commencé di wane ne ñoom ñoom ñooy défendre taalibe yi ñooy défendre xale yi ñooy def lii te loolu la ñuy wax la ca gën a bari donc ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ne ñoo ko moom duñ ko gis moo tax ñu ñu ne nag léegi dafa jot en tant que ay sëriñ daara yoo xam ne yi dañoo dañoo wu euh, te sur le plan boo xoolee ci wàllu statistique yi gis nañu ne mun au niveau des Parcelles Assainies après la ville de de Touba mën nañu wax ne fi ëpp dégg nga fu ñuy jàngale alquran mën nañu wax ne ci région de Dakar Parcelles Assainies la loolu moo tax bi ñu organisé wu ñu suñu biir ñu ne nag léegi dafa jot lii ñu jéem a xool nan koy réglé parce que bu fekkee dañuy toog toujours di xaar autorités yi ñuy réglé suñu problème bu boobaa du sotti ci la ñu organisé wu ba nga xam ne bi chaque année bu ñëwatee rek ñun danañu danañu def ay activité yoo xam ne ci la ñuy ci suñu suñu nekk ci liggéey pour xool aussi nan la def ba régler problème yi nga xam ne dajewuñ pour daje noonu rek mais dañuy xool problème mm, yooyu laa bëgg imaam ñu taxaw ci tuuti ndax euh, même bu ñu ñëwee ci ñooñu nga xamante ni ñoom nga duppee taalibe yi mm-hmm. souvent bu leen fekkee ci daara yi xëy na ci yenn conditions yi la ngi toog ba léegi mhm. amu ci concrètement ay avancé blocage yi fan la féetee waa loolu loolu mën naa wax ne responsabilité yi dafa xaw a dafa séddaliko parce que am na ci loo xam ne euh, bu fekkonte ne tey ji daara ji la ca war a am am na ca yaakaar naa ne xëy na conditions yi ñu dund duñ ko dund la ca war a am nag la tax amu ca lenn li dellu ci yenn wéyjuri euh, ndongo yi te wéyjuri bu ñu ko waxee am na ci ñoo xam ne néew ju doole bokk na ca lu ñu ràññee ci ñoom ba tax mais nag gëm gi gëm alxuraan tax na ba fi saa saa bu seen doom matee dal alxuraan dañ koy jàngal mais aussi am na ci loo xam ne lii dégg nga société bi ci boppam mun nañu wax ne ñoom dañoo dañoo géndeekuwul dañoo bàyyiwul dañoo bàyyiwul xel euh, daara yi ci nañ ko war a bàyyi ko am nañu am na kuréel su néew soo xam ne ñoom déjà ñoom ñooy bàyyi xel euh, daara yi ci boo xam ne bëgg bëgg danañ mën a nekk ci condition yu baax pour mën a toog jàng mais état bi nga xam ne nag moom moo jabote ñëpp dañoo seetlu ne moom daanaka la nga xam ne lii moom la war a def dëgg dëgg dëgg ci daara yi def donte yëg nañu ne am na ay am na am na ay effort yi ñuy def mais ba léegi nag pour ñu euh, nu ñu koy tuddati Euh, jëfe li nga xam ne moom la ñuy xalaat ci ay séminaire ak yu bare bare bëri ba tey feeñagut ci ci ci daara yi nañ naka lañ ko war a mën a jariñoo donc yaa wax euh, parents yi yaa ngi wax état bi mais am na ñoo euh, ñooy sëriñu daara yi que dajale ay yoo xamante ni yow leer la na ni amoo condition yoo leen dundalee xale yi da ngay gis dañuy feebar am ay góom weex duñu lekk ba suur responsabilité boobu lu tax ngeen di nangu yéen en tant que sëriñ seen yeneen i collègue di ko gàddu te mënuñu ko assumer waaw loolu loolu mën nañu wax ne daanaka ñi koy def parce que nag am na ñoo loolu duñ ko weddi am na ñu koy def d'ailleurs bokk na ci ñun combat bi ñuy mëne nan la def ba loolu mën a dañ parce que dafa am ñu juux ci biir secteur bi ñoo xam ne ñi daanaka bokkuñu ci bari na njàmbat yi ngeen di dégg ci ay ay ay njombe ak i njaaxum yoo xam ne léeg-léeg nga dégg ko ci biir daara mais ña koy def dëgg-dëgg ñoom kenn mënu leen tuddee ay sëriñu daara te dàqontewul ak nag sëriñ daara yi nga xam ne yi wax dëgg yàlla ñoom li la wax nii nga xam ne maanaam dañoo nekk euh, ay citoyen d'abord tànn al njàngum alxuraan mu nekk benn moyen d'éducation maanaam euh, euh, parce que loolu yoon moo ñu ko may constitution bi moo ko may ñoom ñu tànn loolu ngir seen doom di jàng alquran léegi nag bu ñu demee ba nga xam ne bii gis nañu ne xale yooyu gannaaw loolu dafa mënta ñàkk ñoom parce que dañoo nañu bàyyi xel ni euh, maanaam du caagin ne koy def rek ngir jàng jàng ko noonu déedéet mm-hmm. dafa nekk loo xam ne diine suñu diine ji l'islam moom moo ko njëkk a sàkku ci ñun parce ku ne xam ne ne sa julli balaa moo mën a baax faaw ñu jàngal nga mën a jàng faatiha jàng saar te loolu faaw nga dem daara boo demul daara doo ko mën a am kon loolu comme nag nekk na lu mënta ñàkk am na ci ñoo xam ne ñi ci cadre bu ci la dem nag ba gis ni dajale doom julli ñi di leen jàngal dafay farata ci ñoom waaye nag condition yi ñuy nekkee itam bu doon seen sago des des leen ci dimbali ba seen liggéey mën a yéwén. parce que lu mënta ñàkk la bëgg concrètement pour que bañ ko dalee wax wax nga ko coow li yàgg na ñu avancé gis ni xëy na xale yi tey jii am na amélioration ci seen i conditions lan ngeen bëgg tey jii ñu def ko pour mbir mi leer changé. waaw dimbali moom liñ ci gis gis nañu ne liñ ci li ñu njëkk a soxla. pour ñu jàppale ñu ko mooy ñu organiser waat secteur bi gis nañ ne nag état baa ngi ciy def ay effort. organiser ko ba ñu xam kan mooy jàngalekat dëgg dëgg dëgg ku warta nekk jàngalekat bu mu ko doon foofu mooy première ndimbali ñaareel ba itam gis nañ ne ñi jot a nekk sur le terrain am na ci ñoo xam ne xam nañu leen ñu ngi prouver ay résultats yoo xam ne yi wax dëgg yàlla ku fa dem xam ne ñii ay daara parce que nag daf ci am ne toujours à chaque fois xëy na nag malheureusement li ëpp ci presse nga xam ne xëy na dañoo mooy borom pot yooyu ak nangam mais am na ci ñoo xam ne ci biir cadre nii ma la waxee ne moom ñu bëgg a réorganiser secteur bi am na ci ñoo xam ne déjà soobu nañu ci yoon woowu ba ñu ngi ci def ay résultats yu rëy te dem nañoo dem a dem ba am na ci ñoo xam fan lañ fan lañ sukkandiku ba mën faa jaar nag foofu lañ bëgg daara yi yëpp jaar fa mais comme loolu xëy na euh, ndar lañ naan ndar xëy xëy sotti mais ñi ngi def ay pas ay ay ndànk-ndànk mais dañoo bëgg aussi état bi yëg ni ñun aussi njaboot lañu goo xam ne gii ci biir Sénégal lañ dëkk duñu ay Burkina bi duñu leneen ay sénégalais lañ yoo xam ne dañoo nekk euh, dégg nga la comme ay citoyen à part entière kon jaadu lépp loo xam ne lii dañ koy defal yeneen doomi réew yi nga xam ne ñi ngi jàng leneen wax dëgg yàlla nag ñu geesu ko geesu ko jàppale nasaraan yi ñu jàppale leen ko si si jëlal leen ay jàngalekat yoo xam ne dañ leen di fay comme ni ñuy ñuy ni ñuy fayee euh, di euh, ko mën a am donc loolu tant amut gis nañ ne coowle fi nekk rek waaye daanaka problème daanaka pour ñu pour ñu ko dana xaw a jafe ñu lay gërëm di la sant Maam Adama Seck moom suñu daara yi fële ca Parcelles Assainies incha allah 20h euh, ci l'incontournable li nga ànd ak Mamadou Wakan ci kàllaama nasaraan ngir leeral loolu lépp ñu leen di gërëm mbokk yi di leen sant incha allah ni ñu ko waxee bi 20h la gërëm waa régie bi jërë ngeen jëf.